ci nga bokk euh, nga nuyoo euh, waxtaan wi ni ma ko ubbee noonu kon dañuy jaar ci Cheikh Amadou Bamba pour wax ci almaami Samori Touré ndax seen diggante amoon na lu ci doxoon euh, maa ngi lay gërëm Fatou Thiam maa ngi lay gërëm Thiam di la sant aussi ci invitation bi nga ma invité ci at mu bees mi di souhaiter une bonne heureuse année à toute l'équipe de Rewmi FM di souhaiter la bonne année à tout le peuple sénégalais et sans exception di nuyu kilifa diine yi rawatina Euh, xalif généraux yi ci Sénégal di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo jiite réewu Sénégal euh, dëgg la ñun sénégalais sunu bu ñu xamee Samori toure sax ngir yàlla ak Cheikh Ahmadou Bamba la dëgg la naam Cheikh Samori Touré nekkoon na buur nekkoon nitu nitu yàlla nekkoon na jàmbaar joo xam ni euh, bu ñu xamee Samori Touré mooy daje bi mu dajeeg Serigne Touba waaw ndax Serigne Touba moom boo xasee ba dajeeg moom rek dafa am beneen dimension bu mu yokk ci yow. te loolu mën naa ne Serigne Touba mooy sunu buntu ci Samori Touré. waaw ci Samori Touré nag nekkoon na koo xam ne ku siiwoon la nekkoon li tubaab tuddee chef de guerre maanaam daan daan jiite xare boo xam ni pour xeex njaam xeex di bañkat la woon daal. waaw nekkoon na tamit ku daan wax l'érudit des montagnes. waaw te lii tamit am na ci boroom xam-xam yu ci mel ni euh, Baba Coumba Thioune ku ci mel ni Serigne Moustapha Thioune. mu sunu jàmbar jooju yàlla na ko yàlla xaar àjjana am na liggéey bu am solo boo xam ne ñoom it def nañ ko ci. Euh, ndax euh, bi nga xamee ne euh, jàpp nañ ko tubaab yi jàpp ko les autorités coloniales def ko prisonnier yóbbu ko ci suuf si génne ko dëkkam boobu nga xam ne fa la cosaanoo muy Guinée yóbbu ko dëkk bu ñuy wax forêt forêt tropicale ba ca Gabon. également si foofu la l'empereur parce que empereur la woon ci jamonoom donc doon doom ci siratieri Mori waaw waajuram mi tuddoon Siré Thiéni Mori euh, commandant bi ko euh, euh, Franco Mori quatre de ses de ses femmes maanaam moom it nekkoon na jàmbaar joo xam ni moom Franco Mori amoon na ñeenti doom waaw maanaam ñu naan ko ñeenti doom ak ñeenti soxna ak juróom-ñaari surga yoo xam ne ñoo ko daan liggéeyal foofu il nekkoon na ko Samori Touré nag mi ngi génn àdduna en 1900. 1900 nag at la boo xam ni at bu bari ay événement la ndax suñu jàmbaaru diine jooju tamit ci la gane si àdduna ñu naan ko Cheikh Maulana El Hadj Ibrahima Niass ak ku ñuy wax aussi euh, ci la aussi la ñu inauguré euh, la Tour Eiffel en 1900 ci Paris te at moomu ci la Bouna Albouri Ndiaye ak Massouran Souran représenté Sénégal à l'occasion de la de la de l'inauguration de l'exposition universelle d'ailleurs sax ren jii defe naa ci la am benn exposition universelle bu ñu war a def dans les Émirats arabes unis voilà Samori Touré nag euh, bi nga xamee ne quand même euh, avant muy génn àdduna quand même woon na ndaw ci Cheikh Ahmadou Bamba mm. pour ñaan ko euh, pour mu ñaanal ko ndax booba Samori Touré ndeysaan feebar bi jàpp na ko mm. te dafa bëggoon bu génne bala muy génn bu génne àdduna Serigne Touba ñaanal ko alors kooku nga xamoon moom la Samori toure yabaloon Serigne Touba dafa jël suuf ñaan ci jox ko ko pour bu demee mu mu jox ko Samori Touré pour que ginnaaw gi bu fekkee ni wàcc na liggéey tamit ñu ñu sotti ko foofu nga xam ne fa lañ ko denc. bi ginnaaw it ba mu génnee àdduna parce que Samori Touré la ñu jëkk yóbbu avant Serigne Touba. après Serigne Touba ba ma ko fekkee tamit dem na ba nga xam ni ñaanal na ko ndax la nga xam ni Samori yi ma ngi ko doon wut ci moom yaa Cheikh Ahmadou Bamba jot na ko defal. loolu aussi euh, ku ñu wax euh, sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana aussi am na lu mu ci wax ci téereem boobu ñuy wax Irwa Unadim. ñu muy benn téere boo xam ni daf ko jagleeloon Cheikh Ahmadou Bamba ci maanaam ci jaar-jaar boobu nga xam ni moom la Serigne Touba euh, jaaroon ca Gabon. Moussa Ka aussi nekkoon bindkat bu mag aussi nekkoon chroniqueur bu bari xam-xam. nekkoon biographe Serigne Touba aussi wax na lu demee noonu. waaw ak ku ñu wax sëñ Moustapha Lo aussi précisé na ko waaw. Samori Touré kon ni nga ko waxee ci ubbi bi euh, jàmbaar la woon ci euh, wàllu xare chef de guerre la woon euh, est-ce que mën nga ñu ñëwal un peu ci nan la def ba ba ba yegg ci doon chef de guerre ndax njàmbaar gi daf ko donn wala nan la def daal bam mu armée jaar-jaaram surtout ak janoom ak tubaab yi parce que ku nekk xam na ne résistant la woon. waaw Almaami Samori Touré mi ngi gane si àdduna donc. ci 1830. ci dëkk bu ñuy wax Mañam Mbala Mbala Gudu Mbala Dugu. moom la ñu actuel Guinée boobu Guinée noonu lu tuddoon mi ngi génn àdduna comme ni ma ko waxee sànq le 2 juin 1900 ci Gabon te moo fondé aussi l'empire Wassoulou nekk na aussi képp koo xam ni euh, li taxaw li ko boole nag tubaab yi mooy dugg bi tubaab yi dugg ci biir dëkkam loolu mooy sababu xeex bi nga xam ni jot na ko jàppante ak Samori Touré Samori Touré nag comme ni ma ko waxee sànq aussi euh, yaayam mi ngi tuddoon Sonka Camara euh, baayam sant daan nañu wooyee tamit baayam Lanfia Touré waaw mi ngi commencé carrière am ci commerçant da daan jaay loolu sax moo taxoon mu bari woon alal moom Samori Touré nag ku ne ko bari alal waaw da daan bi mu bari alal aussi da ko daan jënde ay da daan da ko daan def ci ngànnaay di ko jënde ak ngànnaay pour mën a xeex tubaab yi nga xam ne ñoo daan dugg ci dëkkam pour coloniser leen kàttan jooju mu kàttan boobu euh, Samori Touré amoon ak doole jooju moo taxoon euh, ñu bari aussi dañ daan sukkandiku ci moom pour di sàkku ndimbalam voilà yaayam gis nañu ci histoire ni que mosoon nañ ko jàpp jaam euh, xëy na moom njàngam ci wàllu arme ngànnaay foofu la jaare ndax ñi jàppoon yaayam jaam demoon na euh, pour liggéeyal leen mooy Cissé yi euh, ndax mën nga ñu ñëwal ci partie histoire boobu. Samori Touré nekkoon na soldat ci benn armée bu ñuy wax Serigne Birama Sori Euh, qui avait capturé sa mère euh, Birame Souri nekkoon na koo xam ni tamit moo jàppoon yaay Samori Touré euh, ci benn xeex boo xam ni xeexu njaam la boo xam ni aussi dëgg la noonu dañu jàppee woon yaayam ñu naan ko a Camara jàpp ko def ko jaam te loolu aussi bokkoon na ci li nga xam ni euh, sababam na aussi sa révolte parce que am na ko loo xam ne aussi nit ki bu demee ba dugg ci rek am na lu ko waral am na lu sabab sabab bi aussi mooy loolu donc euh, mu doon jàpp bi ñu jàppoo yaay moo tax son combat était un combat de libération pas de libération euh, de l'homme noir mais de la femme aussi parce que loolu si mën na ci jàng ne Samori Touré nekk na ci ñi nga xeex pour la libération de la femme mais aussi xeex na pour la libération de l'homme noir xeex na aussi pour la liberté d'aller et de venir malheureusement il a été le martyr de cette liberté là il a été euh, lui-même fait prisonnier par les autorités coloniales du fait de ses combats contre la pénétration loolu aussi bokk na ci li nga xam ni tax nañu yóbbu ko dëgg la Euh, amoon na aussi euh, su armée bu amoon doole moom Samori Touré boo xam ni ay góoru jàmbaar ñoo ko ñoo ko seqoon te aussi wóolu woon moom Samori Touré ñu ci bari aussi amoon na ci ay xaritam ay ñoo xam ne ce sont ses amis d'enfance moom ñoom ñoo bokkandoo woon xale. ñu wax ba tey ci histoire lu demee noonu euh, peut-être ñëw un peu ci tubaab yi ni ñu duggee Afrique ak bi ñu ñëwee ni mag ñi jàkkaarloo ak ñoom pas sax sénégalais yi seulement mais Samori Touré ak ñu mel ni ñoom dugg tubaab yi ak seen janoo ak résistants africains yi. waaw kooku aussi ñu ci bari bind nañ ci le professeur Ibrahima Babacar wax na par exemple ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba mais Serigne Touba moom xeexul mais dafa jàkkaarloo ñu ci wàllu ci wàllu baatin. moo tax le professeur Marnan et très vite cette localité devient le lieu de rendez-vous de tous les opprimés et de tous les opposants à la présence française. Peu de temps après, Ahmed Bamba créa Touba, choisi pour servir de capitale de la doctrine qui vient de fonder le mouridisme. Le nom mouride évoque un islam de bon aloi qui dérive de l'arabe mouride. qui signifie un aspirant et un postulant, mais au sens ordinaire du terme, le mourid est une personne de poids ardente qui cherche l'union avec Allah. Mais le caractère du mourid, la doctrine du mourid est d'avoir donné le travail comme équivalent de la prière et comme tel susceptible d'assurer le salut éternel. Euh, Touba devient le haut lieu de la spiritualité mouride. La situation géographique de la nouvelle Médine vale au mouridisme naissant un recrutement si ak gëm li mu nekk ak gëm diineem loolu moo doon arme jumtukaayam waaye tamit tubaab yu bari xeex nañu ndax euh, mag ñi xeex nañu day sax loolu moo tax man maa ngi bëggoon proposé dama ci suma xalaatu bopp laa bëggoon proposé pour ñu def mémorial du Gabon bon mémorial du Gabon li tax ñu war ko def mooy dañu waroon tabax benn mémorial boo xam ne comme di ko sénégalais yi defe sénégalais aussi euh, ñu ngi rafetlu seen xam-xam ndax il faut reconnaître que aussi euh, doomu sénégalais ñu bari xam-xam ndax it xeex nañu ci seen ba ñu réhabilité njaam parce que xam nañu Gorée Gorée jaam yi lañ fa daan yóbbu mais fexe nañu ba créé li ñuy wax le mémorial de Gorée te suñu xarit boobu ak naataango boobu ñu naan Amadou Lamine Sall mu ko nar a jiite te président Macky Sall décidé na ne ren jii sax la koy la koy la koy tabax. waaw mémorial de de de de Gorée nag c'est un souvenir aux esclaves de Gorée. mais Gabon moom foofu buur yi lañ fa yóbbu woon ak wëliyu yàlla yi. ku mel ni ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ak buur yu mel ni aussi empereur Samori Touré ak ñeneen ak ñeneen ma yaakaar ni ni ko sénégalais yi defee fii ci Sénégal ba tabax. mémorial de Gorée di ci ko maanaam jaam yooyu ñu yóbbu woon Amérique avec par le triangle commerce triangulaire yóbbu leen Brésil yóbbu leen Antilles yóbbu leen feneen je crois que état bu Gabon war nañu xool ak état bu Sénégal ak état bu Guinée. n'est-ce pas ak même la France naka la ñu mën a tabaxee benn mémorial boo xam dañ fi fàttaliku buur yooyu nga tudd léegi te ñu yóbbu woon leen Gabon nga xam ni xale yeeg étudiants yi chercheurs yi bu ñu ñëwee Gabon dinañ xam ni fiikat kat ñu yóbbu woon mag Sénégal aussi am na ci buur yu bari yoo xam ni loolu am na ku mel ni Bouna Albouri ku mel ni Albouri Ndiaye Buuna mooy doomam mais Alboury aussi jàppale na toi Demba War Sall aussi noonu Lat Dior Ngoné Latyr le fougueux guerrier du Kajoor qui a tenu tête pendant dix ans aux Français Maba Diakhou Ba la bataille de Paoskoto la bataille de Somme Maba Diakhou Ba mën nañu ne daal xëy na tubaab bi aussi xëy na ngànnaay ak armurerie ak euh, munition lu ñu ëppale woon euh, mag ñi mais du woon fit du woon jàmbaar loolu aussi il faut le reconnaître que bu dee jàmbaar rek d'ailleurs la preuve mooy que durant la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale France sax dañu mujj puiser dans l'armée de l'Allemagne Omar Foutiyou Tall parce que Omar Foutiyou Tall aussi jàppante na ak tubaab yi France xam ne Omar Foutiyou Tall mi am na expérience su résistance ak jàmbaar moo tax France bi ñuy def première guerre mondiale dañu ñëw jël ci armée Omar Foutiyou Tall ñu bari ñoom la ñu envoyé dans la grande guerre la bataille de la bataille du chemin des dames ñooñu ñëpp nekkoon na ay xare yoo xam ne tirailleurs sénégalais it am nañ ci taxawaay bu sori. ñu ñëwaat ci Samori Touré Gabon la génnee àdduna bi ñu ko tegee loxo ndax xam nga dara ci condition de détention yi foofu ndax moom gis nañ ñëpp na mu ni moo ko rey te peut-être mun nañ jàpp ne environnement bi ak fi ko dencoon ak yooyu am na ci am na ci wàll euh, ni leen daan téewee ak condition de détention yi loo ñu ci mën a wax. waaw dëgg la c'est-à-dire que sa Touré conditions yi ñu ko yi ñu ko yi ñu ko dafa doon ay conditions yu métti. d'abord euh, condition de de cadre de vie. parce que fi ñu ko indi woon dafa nekkoon une forêt aquatique animalière forestière inhospitalière. amul woon nit mënu fa woon dund. amul woon apparition humanoïde maanaam bindu doom aadama sax newu foon même sax ay mala daal ñoo fa nekkoon donc ci contexte boobu la donc euh, xam naa ne amul woon daal cuisinier. ak benn intendance bu ñu daan def pour que ñu di ko toggal ak di ko topp loolu. dañ ko moom ci boppam sax Samori Touré ndax guro la daan añee guro la daan reere guro la daan ndekkee. Ah waaw moom tout sa vie li mu leen gaboo yëpp guro la guro la daan lekk. te it tubaab bi aussi pour ñu jàpp ko il a fallu que ñu jël trente cinq mille fantassins ak trois mille cavaliers. te xeex bi jëm na seize ans digganteem ak tubaab yi. loolu. ci xeex boobu lañ ko jàppee waaw ci xeex boobu lañ ko jàppee. bon dañ ko mujj wor nag. daal di ko arrêté le 19 septembre 1898 par le commandant Gouraud moo ko jàpp ñu exi exilé ko au Garmos dëgg la pneumonie pneumonie moo ko rey ci la faatoo le 2 juin 1900. ñu wéy ci Samori Touré ba tey euh, xëy na tey Guinée génération bi fa nekk tey xamuñu ko waaye du ñàkk am na lu Samori Touré amoon foofu comme taxawaay loo xam ne mi ngi rogalaat ba tey ci ci boobu dëkk. oui je crois que Samori Touré aussi bokk na ñi nga xam ni ñoo jéem a ñoo ñoo ñoo yokk nañu. am na Samori Touré est très présent dans l' de des maanaam dafa teew ci bopp Guinéens yi ni Serigne Touba teewee ci boppu Murit nga xam ni Murit du fàtte sëñ Touba Samori Touré aussi noonu la teewee rawatina nag politiciens yi nga xam ne ñoo nekk Guinée. ku ci mel ni Ahmed Sékou Touré ndax Sékou Touré moom demoon na sax ba am mbokk goo xam dañ ne woon moo am digganteem ak Samori Touré. amaana xëy na sant bi Touré Touré yi mais aussi amoon na sax benn historien bi daan le professeur Ibrahima Babacar Kay ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana am na benn problème bu mu amoon nag le président Sékou ture ba nga xam ni sax neewoon na Sékou Touré que bokkulook Samori Touré dara ba loolu waral ko mu génn Guinée ndax seen way président Sékou Touré ne ko xawoon ko lemtu lemtu bu metti bëggoon ko sax génne ba mu ba ba mu Babacar ki dafa mujj génn Guinée dem France ba mu demee France ci la daan liggéey à la ci la daan jàngale jàng à la Sorbonne fa la amee son agrégation aussi foofu ci biir Sorbonne ensuite il travaillait en France à Radio France Internationale dans une émission qui s'appelle la mémoire d'un continent la mémoire d'un continent kooku Ibrahima Babacar boobu moo ko moo ko créé Euh, il aussi créé à Paris ce qu'on la collection des grandes figures africaines comme yow ni nga koy defee nii ci rajo moom daf ko daan def mais ci wàllu téere da daan bind ay téere am na sax téere yu bari yu mu bind bind na ci Ahmad Bamba bind na ci Chaka bind na ci ñu bari kooku le professeur Ibrahima Babakaki moo ko defoon mais nag li sababoo mu jógee Guinée ñëw France mooy jàppante bi nga xam ni moom la amoon ak Sékou Touré te la ko sababam aussi mooy problème bi nga xam ni waxoon na ko ci digganteem ak l'Allemagne Samori Touré mais aussi que Sékou Touré il faut dire aussi il faut l'avouer que moom dafa reprendre la combat d'Ahma de de l'Allemagne Samori jël ko def ko son approprié wu combat bi ba pour mën a jàkkaarloog tubaab bi moo tax toute la vie de Sékou Touré son combat était un combat contre la France contre l'impérialisme et d'ailleurs jusqu'à présent je pense que les effets collatéraux se sentent parce que si la Guinée souffre aujourd'hui de son isolement surtout pendant la, la période euh, post indépendance li ko waraloon mooy Sékou Touré dafa jàppante woon ak tubaab yi parce que xam naa li ko gën a metti ki bokk na ci ne dafa d'ailleurs sax am na benn promotion aussi bu Sékou Touré tuddee Cheikh Ahmadou Bamba booy mm. booy à l'université de Conakry am na ci benn promotion bu mu tuddee la promotion Khadimou Rassoul waaw nga xam ni keroog def na fa discours bu rëy ndeysaan di rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba moom sax ñëw na ñëw na Touba la parce que Serigne Touba aussi amoon na boo xam ni daf ko amoon ak euh, Samori Touré. tey yan valeur nga jàpp ne doomu Guinée yi war nañu ko jëlee ci Samori Touré euh, ngir mën a jëm kanam. waaw c'est que Samori Touré d'abord il faut en faire une destination touristique. au lieu ñu naan Samori Touré ñu ne Samori Tour c'est-à-dire faire un tour un voyage dans le pays de Samori faire un tourisme culturel et voire même religieux. d'aller vers les routes de la mémoire demaat gëstuwaat kat mooy Samori Touré parce que Samori Touré aussi au-delà de parce que la symbolique maanaam li ci am solo sabab li ci am solo rek mooy wane ni Samori Touré mi nekkoon na bañkat du koo xam da ngay ñëw rek jàpp ko na nga jàppe woon yaay ji non bañkat la woon xeexkat la woon aussi ku fonkoon diineem la ak ku fonkoon continent am la bokk na ci li nga xam ne aussi xale yi war nañ ko jàng foofu mais aussi du waa Guinée rek ñoo war a jàng histoire u Samori Touré mais aussi essayer de laver Samori Touré des calomnies qui l'ont défiguré ah parce Samori Touré yoo xam ne ci bari que c'est un sanguinaire reykatu nit la da daan jàpp jigéenu biir opéré la rey rendi sa biir génne sa doom sa ci sa biir bon tout ça sont des clichés des stéréotypes bon moi je ne suis pas là pour faire l'avocat de Samori mais je crois qu'il faut essayer de laver quand même certaines grandes figures africaines des calomnies. te euh, yooyu wax fan la jugee. non yooyu yëpp ce sont des tu sais en durant la période coloniale tubaab yi aussi dañu am benn système. parce que bu ñu bëggee yàq sa der wala ñu bëggee nit ñi bañ la dañuy wax ci yow lu ñaaw parce que yow tey boo ñëwee ci benn nit ne ko Moustapha Gueye mii njublang la Moustapha Gueye mii du ku baax Moustapha Gueye lii laa la nit ku ma bëggoon sax dootuma bëgg ndax lu ñaaw la nga wax ci moom donc système la boo xam ne aussi coloniaux yi aussi dañ ko daan jëfandikoo waaw loolu sax mi man tey nga ñëw daan ne jullit bi lii la jullit bi laa ba boo gisee jullit daw mhm. Samori lii Samori laa ba boo gisee Samori Touré daw dëgg la it Samori Touré bon on euh, ne pas évoquer des combats qu'il a menés. Il a mené des guerres avec des, des tueries, certes, mais ni ko tubaab yi dépeindrait je pense que là aussi il appartient à la nouvelle génération. waroon def ay jihad aussi. waaw ouais, bon pas jihad mais plutôt résistance. oui jihad parce que moom aussi de euh, Serigne la woon. mais plutôt son combat c'était de refuser la pénétration française. Mm. dans euh, en Guinée surtout dans parce que empereur la woon aussi. waaw c'était un empereur maanaam. Euh, jàpp jaam bi peut-être dañuy wax ne muy dem Côte d'Ivoire foofu daan na fa teg ay nit loxo jàpp leen euh, ba mu bëggee imposer l'islam. waaw xam nga il y a eu ce qu'on appelle des tentatives de prosélytisme c'est-à-dire d'amener les gens à adopter l'islam parce que boobu ci époque boobu nekkoon na dañu nekkoon parce que c'est une question d'époque parce que loo gis rek jamono am na jamono yoo xam ni bon dañ daan utiliser aussi le mot djihad pour étendre son emprise parce que en réalité aussi dañuy mbubboo lislaam ne ñu ngi xeex pour taxawal l'islam fekk c'est pour yokk ci seen daraja bopp yokk ci seen kàttanu bopp yokk ci seen hégémonie bopp. maanaam dañ doon ñëw di xeex di nangu ay gox kon. ci turu l'islam loolu aussi. bon am na ñu koy waxal yenn kilifa yi. mais bon gëmuma ne. loolu am na parce que gisuma impact bu xam ni aussi ba léegi. retenir nañ ko ci taxawaay Samory Touré ci loolu ca ca Côte d'Ivoire. donc mënuma gëm loolu daal mais par contre euh, xam naa ni daal njiit la woon boo xam ni non seulement doon na défendre Guinée mais doon na défendre aussi dëkk yi taxalu Guinée comme ay Côte d'Ivoire ak yooyu yëpp doon parce que France aussi dañu posé woon seen tentacule partout. parce qu'il y avait une forte hégémonie de, l'armée française de la puissance de la machine coloniale donc euh, parce que Samori bu xeexee ci front bi xëy na ñoo ngi koy xaar ci front bële donc il fallait moom it en tant que stratège en tant que guerrier meneur d'homme combattant guerrier mu xam ban stratégie lay appliquer pour contrecarrer la stratégie euh, de domination euh, des Français sur ces sujets coloniaux coloniaux jàpp jàkkaarloom ak français yi am na ay bataille yu bëri ay guerre yu bëri yoo xam ne def nañu ko euh, lan lañu ci mën a jàpp ci njàmbaaru Samori Touré. waaw c'est-à-dire que dañu wax ne Samori Touré en mars 1895 am na benn expédition boo xam ni le colonel euh, Archinard defoon na ko ndax dafa lancé woon benn attaque ci Cancan. Euh, maanaam Cancan benn gox la boo xam ne bu siiw la sax bu nekk ci Guinée sachant que les fortifications de la ville ne pourrait résister à la tête de France Samori dugg ci xeex xeex boobu nga xam ni mooy xeexu Kankan euh, ba mu ca duggee ci la euh, am benn guerre boo xam ni guerre bu metti la diggante Samori Touré ak Archinard teer xeex la boo xam ni euh, mën nañ ne malgré la force de Archinard malgré la force de la présence française mën nañ ne Samori Touré moo gagné xeex boobu donc loolu aussi c'était à Kankan quand même teewul français yi continuer quand même di fa nekk aussi waaw muy xeex la boo xam ni euh, xeex bu métti la ñu naan ne nekkoon fële ca Badagoudou fële en septembre 1891 ci la xeex boobu amoon waaw foofu nag aussi euh, mais euh, ci juin 1892 am na beneen combat boo xam ne aussi Samori Touré mëne na ko ak ki nga xam ni moo wuutu Archinard ñu naan ko le le colonel Humbert voilà moom aussi am na beneen jàppante boo xam ne jàppante na ko ak Euh, Samori Touré euh, ci la moom sax mooy mujj jàpp Samori Touré déjà ndeysaan ci euh, xeex boobu nga xam ni moo doon moom la jàpp moom la amoon ak Samori Touré. seen émission démb ak tey ngeen di teew lu mbokk yi ñuy waxtaanee almami Samori Touré di ci dalal Moustapha Guèye journaliste chercheur écrivain alors ñu wax ba tey ci Samori Touré mais bi yoon ak waa Bembeya Jazz yi nga xam ne xëy na daal di nañuy koy rafetal jaar jaaram donte am na ñoo xam ne xëy na ñu ngi koy wax léegi ne tubaab yi loolu bokkoon na ci seen euh, ay mbir yoo xam ne dañ ko def ngir yàq xelu askan wi ci kilifa yooyu alors euh, Bembeya Diaz ak Samori Touré loolu ci mën a wax. waaw dëgg la euh, ah, Samori Touré tamit ñi ko ñi ko rendre hommage bari na ndax am na benn pièce de théâtre boo xam ne ñu ngi ko joué fële ca Guinée en 1800 en 1988 nga xam ni boobu aussi dañu ci def. Euh, benn pièce de théâtre pour wane pour pour jàngal nit ñi naka la sàmm naka la ñu jàppee Samori Touré ak xeex bi mu digganteeg tubaab bi am na ku ñuy wax si benn peintre français bu ñuy wax Pierre Castagnès aussi defoon na fii ci Ndakaaru benn tableau boo xam ni daf ko jagleel Samori Touré waaw moom it peintre la bu mag boo xam ni aussi euh, tableau bi sax def naa ni mus jot nañ ko exposé au musée des arts d'Afrique et d'Océanie à Paris mus exposé nañ ko aussi au musée du Quai Branly le musée du, du Quai Branly xam nga ni Jacques Chirac moo ko créé woon ñu naan ko le musée de l'art premier également euh, le groupe Bembeya Jazz National comme ni nga ko waxee aussi ñoom i jot nañu commémorer euh, benn benn album bu ñu defoon ci Samori Touré regard sur le passé nga xam ni képp kuy euh, génération des Sénégalais de la période post-indépendance ba ci jamono président Senghor ba ci jamono président Abdou Diouf sax nit ñaa ngi ko daan déglu avec travers le Boubacar Demba Camara le célèbre chanteur nga xam ni album boobu mi ngi génn en 1969 ki loué maanaam di chanter di hymne mu doon benn hymne boo xam ne dañ ko jagleel l'Allemagne bi Omar Fout Omar euh, Samori Touré pour résistance anticoloniale bi nga xam ni moom def na ko fi. am na aussi benn wéykat bu bari xam-xam bu ñuy wax Alpha Blondy de la Côte d'Ivoire Alpha Blondy tamit jot na def benn benn benn wéy boo xam ne daf ko jagleel. l'Almaami Samori Touré. mën nañ daal ne Almaami Samori Touré daal bàkk nañ ko. wéy nañ ko chanté nañ ko ndax rôle bi mu joué. parce que si c'est par rapport mi ngi mel ni Lat Dior Ngoné Latyr rek parce que am na yoo xam ne jam jom moo la ciy dugal ndax xam nga ni français yi ngay xareel ñoo la ëpp doole ñoo la ëpp munition mais sa jàmbaar sa fit ak sa bëgg réew doo taxul teewul nga leen bàyyi ñuy dugg si biir Sénégal xool ko mel ni Lat Dior Ngoné Latyr dafa fase jabar yi ne leen dem leen ngeen tënji tàggu ji Cheikh Ahmadou Bamba tekki gàllaa ji suul dem tàggu ji Serigne Touba Serigne Touba ko toogal ma may lu gën kajoor mu ni ko mbàkke dëgg la nangu naa sa ñaan waaye bésu dund bésu dee bàyyi ma jàkkaarloog tubaab yi en 1886 ci la Lat Joor wàcc liggéey en 1886 à Derklé donc je pense que ñoom c'est pas une question d'armes mais une question de cœur et de courage waaw am na waaw c'est comme je te dirais que actuellement c'est pas une question d'argent mais une question de cœur am na ñu am xaalis mais seen xaalis duñ ko jëmale ci ndimma dimbali nit ñi mais dañ koy jëmale ci leneen mais am na ñoo xam ne amuñu xaalis mais seen xol bu baax ñu ngi koy jëmale ci nit xëy na sunu mag ñi amuñu woon armes yi tubaab yi amoon mais seen fit ak seen njàmbaar jëmale nañ ko ci défendre seen réew ak défendre seen diine ak défendre seen continent. kon su ma la déggee donte tubaab yi dugg nañ faat nañ ci ñenn waaye mën nañ jàpp ne ñoom ñàkkuñu. waaw ñàkkuñu parce que euh, bàkk nañ leen wéy nañ leen euh, wéy nañ leen ñu ci mel nii parce que. tubaab yi aussi bu ñuy duggee ci dëkk dañuy xool ka ca gën a taxaw ka ca ëpp doole kañ kañ ca gën a di ka ca kañ ca gën a déggal maanaam le plus grand résistant mm. par exemple français ñoom lañu ñu tey boo demee ñu mel éliminé ku mel ni Kadhafi éliminé ku mel ni Thomas Sankara mm. éliminé ku mel ni Patrice Lumumba jël ku mel ni Serigne Touba yóbbu Gabon éliminé diw éliminé diw éliminé diw parce que ki nga xam ne héros la te nga xam ne bu waxee mbooloo mi topp ko mm. France bu ñuy xeex kooku la ñuy ciblé bu ñu ko ciblé nga xam ne bu ñu ko éliminé rek mën nañu jot ba askan wa mbaa jot population ci biir loolu nag moo taxoon nag résistant africain yu ci bari seen problème ak tubaab bi loolu que ay jàmbaar la woon nekkoon ay buur ñii di wëliw ñu jàpp leen nga xam ne bu ñu leen éliminé dañu yaakaar ne bu ñu fa jógee rek seen seen seen taxawaay dina mën a dina dinañ jot seen objectif bi nga xam ne moo moo leen tax a jóg loolu aussi bon bokkoon na ci seen stratégie quoi les Français c'est pourquoi la plupart Bouri Albouri Ndiaye était exilé au, à Dosso au Niger, Cheikh Ahmadou Bamba déporté au Gabon, Samori Touré au Gabon, euh, Bouna Albouri Ndiaye, Albouri Ndiaye, comme je l'ai dit, au Niger, euh, Lat Dior Ngoné Latir à Berkeley, euh, Demba Warsal aussi, durant la bataille qu'il a eue avec, euh, avec euh, l'armée française, le, euh, le, gouverneur français. Euh, buur yooyu yëpp nga xam ni dañ daan bañ te nga xam ni seen askan dañ leen toppoon France bu ñu éliminer ñooñu rek dinañu mën a jot askan wa loolu kooku stratégie France la bokkoon kon foofu la ñu jaar ak almaami Samori Touré peut-être dañu dañuy ñëw ci moom bi mu génnee àdduna xëy na ñi mu fi bàyyi euh, après ban taxawaay la ñu la amoon. waa c'est vrai que am na benn benn relève bu ma tuddee la relève transgénérationnelle mm. c'est-à-dire que à travers plusieurs générations le patriote wéy bi wéy bi du fay. ndax xam nga Samori Touré nekkoon na ko xam ni euh, li mu fi bàyyi dafa doon benn benn benn patrimoine benn héritage euh, boo xam ni euh, peuple de Guinée bokk na ci seen tarix parce que aussi histoire dafa am solo parce que comme disait Alexis de Tocqueville benn bindkat nee na que l'histoire est un produit de consommation culturelle maanaam ci histoire la ñu sukkandiku pour créer sa culture je crois que la culture guinéenne est partie déjà de l'histoire qu'a légué Samori Touré en Guinée ça montre aussi que dëkk boobu amoon nañu ay résistants amoon nañu bañkat amoon nañu histoire amoon nañu culture te xeex nañu pour que seen culture ak seen diine mën a mën a rester dans l'histoire je crois encore une fois ce que nous devons faire et man je suis même partant pour cette initiative la muy créer benn mémorial du Gabon nga xam ni l'Union africaine le président de la République du Sénégal parce que Sénégal aussi il faut mu bokk ci parce que Sëñ Touba yóbbu nañ ko fa kon il faut que président Macky Sall jàpp ci Alpha Condé bu Guinée jàpp ci parce que puisque actuellement mooy président bu Guinée euh, te Samori Touré ñu yóbbu woon ko Guinée et président bu Gabon parce que moom it dëkkam la ñu yóbbu la ñu la ñu yóbbu woon mag ñi parce que quelque part aussi la Guinée c'était un peu le goulag. Mm. le goulag c'est un peu le camp de concentration des des des récalcitrants et des révolutionnaires en Union soviétique nga xam ne daan yóbbu ci foofu ñu tuddee l'archipel du goulag. Mais pour l'autorité pour coloniale française de l'époque, le, le, Gabon était un véritable camp de goulag, c'est-à-dire un camp de concentration des grandes figures africaines, surtout voilà, les saints, les, les héros, les empereurs africains qui ont incarné la résistance. ñoom fi leen daan yóbbu mooy Gabon moo tax Gabon boobu war nañ fa tabax benn mémorial pour di di leen ci fàttaliku comme ni ko Sénégalais yi ndeysaan defee fii se seen dëkk. tudd ko le mémorial xam ne ñoom ñu bëgg a président Macky Sall. ak suñu xarit Amadou Lamine Sall di ci taxaw pour que ñu mën ko tabax fii ci corniche bi ci booru géej pour que di ci fàttaliku ak di siggil sunu mag ñooñu nga xam ni dañ leen jàppoon yóbbu la mooy li Cheikh Anta Diop sax daan wax naan l'Afrique a dominé le monde jusqu'au néolithique y compris même fécondant les civilisations du Nil et de l'Euphrate avant que l'Afrique ne soit la victime innocente de ces barbares qui fondaient leur plateau eurasiatique Cheikh Anta Diop ne nag Afrique moo dominé woon àdduna ba ci néolithique néolithique nag jamono la waaw jamono la avant que Afrique di tombé ci euh, li nga xam ne mooy ñu tuddee woon la barbarie de l'époque mais africain yi ñoo dominé woon civilisation adduna euh, ñoo civilisé ba civilisé waa Égypte ndax fa fi ñu tuddee ay pharaon am na ci ay pharaon yoo xam de type négroïde maanaam ay nit ñu lañu jusqu'à à l'Euphrate en Irak ba demee ba Irak seen civilisation yu bari ci Afrique la jóge kon Afrique gàcce ma nekkoon na continent mais nag continent aussi ak civilisation day màgg. day day màgget day dee. civilisation day dund day màgget day dee mais day jëlaat renaissance aussi te jamono ji aussi dañu nekk dans la période de la renaissance africaine te li ko symboliser sax mooy loolu yàlla tëmbal ci boppu ancien président bu Sénégal ba mu créé le monument de la renaissance africaine donc je pense que dañu toll dans un moment de renaissance africaine mais ça ne nous empêchera pas de d'exhumer et de rebobiner le film de l'histoire de, de nos héros et surtout de les qui ont cherché à les stigmatiser et à pouvoir les les calomnier ci loolu aussi dama lu sax li nga xam ne aussi suñu mbokku murid yaa ngi koy def ci diggante Serigne Touba ak tubaab yi bind bi ñuy bindaat histoire bi Serigne Touba wax jiñ ciy waxaat ak euh, mënum université yi nga xam ne ñu ngi koy defaat ci turu Serigne Touba ak euh, musée bi nga xam ñu ngi koy waaj a defal Serigne Touba kooku dafay dafay dafay dafay dafay déconstruire maanaam day raxas ci bopp nit ñi li nga xam tubaab bi jotoon nañ ko bind ci Serigne te loolu dara amu ci woon. Mm-hmm. murid ñëw nañu jëlaat loolu donc ñoom ils sont ñu ngi ci yoon wi di liggéey mais je crois loolu aussi Guinée yi war nañ ko def. pour euh, justement tey tey fii Guinée toll ak ni Guinée di doxee ndax boo ko xoolee méngale ko xeex bi Samori Touré doon xeex euh, bu fi newoon tey wala xëy na ñu woon ko Guinée tey euh, ndax dana ci am mbégte wala dana ne la ma doon xeex ndekete ñu ko. waaw c'est-à-dire moom la mu doon xeex la la ki ko ki ki njëkk a nekk le président de la Guinée indépendante daf ko wéyal te wéy boobu nag moo ko jural lii Guinée nekk tey. ndax jàppante bi nga xam ni Samori Touré doon na ko jàppante tubaab Ahmed Sékou Touré bi mu ñëwee daf ko def son viatique maanaam daf ci sukkandiku pour xàll yoon woo xam ni ci yoon woowu lay jaar digganteem ak tubaab yi parce que li ñuy wax naan l' expérience est une école dont les leçons coûtent cher mais on en sort savant. c' est dire que l' expérience de l' Almaami Samori Touré moom la Sékou Touré jël def ko histoire boppam digganteem ak tubaab yi waaw boo xoolee sax même dans notre communauté mouride suñu yoonu ci yoonu mouride mouride euh, ci biir communauté mouride. lépp lu luñ ci def ak lépp lu ñu ci wax ci histoire u Sëñ Tuubaa lañ ko jëlee communauté murid ñu naan dañuy taxawal lu bees dañu déedéet dañu xool fi nga xam ni foofu la sëñ bi jaaroon euh, muy tariixu tariixa bi mooy seen tariix foofu la murid yi jaar maanaam boo déggee ñu naan màggalu tubaa mooy kooku yoon bi sëñ Tuubaa demee Gabon mm-hmm. màggalu julli géej gi mooy bi sëñ Tuubaa jaaree ci géej gi waa sànni der bi ci géej ba muy dem Gabon julli ñaari rakkay ca ndar mooy fit wi Serigne Touba amoon ak gëm sunu borom bi mu amoon ak taxawaay bi mu amoon ak jom ji mu amoon ak défi bi mu amoon pour julli ci biir gouverneur palais gouverneur pour bañ a fàtt rakk loolu tamit murid yi ba léegi dañ koy màggal waaw yooyu nekk te loolu yëpp histoire la donc l'histoire est un produit de consommation culturelle je crois que loolu murid di wéyal moom la Sékou Touré ci jamono doon jéem a wéyal waaye contexte bi nga xam ni moom la ko doon defee sur le plan politique parce que murid yi bu ñu koy def aussi ci wàllu diine lañ ko def ak jàmm yàlla mais Sékou Touré daf ko defoon comme comme euh, benn benn euh, viatique digganteem ak tubaab yi te loolu aussi impacté na dans ses relations avec la France ba général de Gaulle d'ailleurs dem saboté ba mu d'ailleurs ñoom ñaar jàppante nañu au stade du 28 septembre à Conakry d'ailleurs Sékou Touré da bi nga xam ne de ñëw na fa di wut pour que Guinée bokk dans la communauté des nations communauté des way des euh, communauté française boobu parce que De Gaulle da doon woote lu ñan ñoo bëgg war a woote oui ak non bon am na ñu ànd ak moom am na ñu contre bañ a ànd ak moom Sékou Touré contre na ànd ak De Gaulle d'ailleurs sax discours ba mu fa defoon dafa doon discours bu ula waaw tàng lool metti ba De sax dafa mujj fàtte mbaxanaam casquette militaire am waaw bi mu jógee Guinée di ñëw Dakar dafa ñëw ba aéroport boppam gis ne. mbaxanaam ma ngi ko fàtte Conakry dañu mujj jël avion mu dem jëliwaat casquette général de Gaulle indi ko Dakar ah mu fekk ci waat de fii. xam naa loolu aussi bokk na li tax général de Gaulle jàppal maire ci Sékou Touré. ba dafa mujj saboté Guinée saboté bi mooy. daf ko yàqal ci politique yu bari ci àdduna surtout en Europe. Mm. ba nga xam ne benn dëkku tubaab doo du collaborer ak Guinée. Mm. d'ailleurs foofu sax mën naa ne espèce embargo la ñu defoon Guinée isolé ko ba Guinée aussi dootul demale kenn ñu isolé tam sonaloon nañ comme comme dëkk ba ndax ay faux billets lañ fa dugaloon waaw mais tout ça ce sont des des stratagèmes ay kii la yoo xam ni euh, d'ailleurs il a fallu l'avènement du président Valéry Giscard d'Estaing bi mu ñëwaatee ci nguuru France ci la jiboo le Guinée ak France euh, après nag ñoom ñaar ñu jiboo mais effet yi nga xam ne Guinée dund na ko ci xeex bi muy xeex France moo tey problème yi Guinée am tey boo gisee euh, doomu gine yu bari ñëw Sénégal di fi wut si liggéey te gine am richesse boo am. am loolu dafa jaaxal parce que justement loolu mooy même la jeunesse guinéenne ñu ngi dund. Mm. les effets yi nga xam ni euh, moom la Sékou Touré jàppante woon ak tubaab yi parce que moom it xëy na li Sall Almaami Samori Touré daan jàppanteeg tubaab yi xeex boobu la continuer woyal ko moo tax ñu ne nuyul sa jamono moo gën nuru sa bàyyi mm. waaye Sékou Touré moom dafa nuru woon maamam mais nuru woon jamonoom. te jamono ji aussi dafa doon jamono diplomatie jamono masla parce que réew yi dañu amee ngànnaay am ay stratégie de diplomatie am ay pexe yoo xam ni mën nañ la ci ba pare nootoon ñu jiitoo ñu lu bari. waaw nootoon ñu jiite ñu dañu bari ci wàllu technologie ci wàllu yu bari daal. Mm-hmm. alors donc loolu moo tax. booy xeex ak ñoom effet collatéraux yi yi nga xam ni loolu moo dal jeunesse guinéenne tey boo xoolee y a une très forte présence de la jeunesse guinéenne au Sénégal moo ëpp ressource foofu Sénégal defe naa sax Côte d'Ivoire te Guinée moo leen ressource mais xeex bi nga xam ni moom la Sékou Touré doon xeex ak njàmbaar gi nga xam ni moom la defoon njàmbaar bi ne woon ci maamam bokk na ci li taxoon De Gaulle xawooy saboté Guinée ba Guinée toll fii mu toll parce que jógaguñu ba léegi ci exploitation lañ mën te def ci seen koom-koom bi waaw non je pense que aussi loolu baax na parce que aujourd'hui la Guinée est un pays euh, entre guillemets vierge mm. parce que exploitation yi ñuy defal ci pays africain yu bëri defuñu ko Guinée parce que Guinée quand même, son, ses ressources sont encore euh, euh, euh pas inexploitées, l'immense ressource. Je crois que même ce c'est un accident géologique, parce que Guinée, sur le plan touristique, sur le plan industriel, sur le plan des mines, sur le plan économique, sur le plan sur, à tous les niveaux, la Guinée est un pays extrêmement très riche, est un pays béni par la nature. Mais moi, je crois même qu'il faut essayer d'organiser un circuit touristique, tout de que ça dans le pays de Samori pour, pour en tout cas au nom de la mémoire une route de la mémoire pour aller visiter le pays de Samori. Justement, est-ce que guinéen yi tey xam ko Samori. je ne pense pas je ne pense pas que la jeunesse guinéenne xam nañ ko parce que quelque part aussi euh, xam euh, nga Samori a été son histoire a été appropriée par l'élite guinéenne notamment ñoom président Sékou Touré. Okay. bon le fait que ñu jël euh, Samori Touré euh, def ko seen seen porte étendard. Mm. élite guinéenne bu njëkk ba ñoo ko def ba xale yi dafa mel ni sax ñoomewuñu laal trop ci histoire de Samori Touré ndax alalu élitu Guinée ñoo ko jëloon def ko mu doon aakimoo ko def ko seen seen seen instrument de libération contre la colonisation française voilà dañ ko jëloon def ko jumtukaay bi nga xam ni Samori Touré moo doon jumtukaay bi Sékou Touré jëfandikoon pour dog mbuumu njaam dog domination dog lii dog laa xale yi bu ñu ko xoolee dañuy def ni ah, alalu Sékou Touré la mm-hmm. wala ñu jiite woon Guinée ñoo ko moom ba tax ñoo bëgguñu di ci sori mais je crois que am euh, Samuel Touré c'est un patrimoine de tout le monde mais ñun li ñu a intéressé rek ndeysaan mooy jàpp euh, euh, rapport bi ma amoon Serigne Touba mën naa sax ne Samuel Touré demoon na ba dénk boppam Serigne Touba mm-hmm. te Serigne Touba aussi ndeysaan yërmande gi mu amoon mbaax gi mu amoon ak julite gi mu amoon ndax bi Samuel Touré parce que Samuel moo jëkk Serigne Touba au Gabon après Serigne Touba fekk ko fa mais mais nag avant muy dem nga Gabon yónnee woon na ndaw pour mu pour mu ñaanal ko mais bi nga xamee ne yàlla def na Samori wàcc foofu liggéey li nga xam ni moom la doon wut yëpp seen tubaab seen tubaab defal na ko kon ñun sax bu ñu xamee Samori Touré na ko gërëmee Cheikh Ahmadou Bamba parce que ginnaaw yàlla Serigne Touba moo tax ñu xam Samori Touré ndax dafa presque joxoon boppam Serigne Touba pour mu ñaanal ko te defe naa ñaanu Serigne Touba moo mujj ci bàmmeelu bàmmeelu Samori Touré. am na solo jërëjëf euh, Guèye dañu lay euh, gërëm euh, surtout ci disponibilité bi ak waxtaan yu am solo yi. waaw maa ngi lay dellu di la gërëm di la sant. di gërëm Sénégalais yi ci at mu bees mi comme ni ma ko waxee léegi di gërëm aussi réew mi di gërëm population sénégalaise fu ñu mën a nekk ci àdduna ak ci diaspora bi di gërëm Cheikhna Aïssatou Ndiaye di gërëm aussi jullit yëpp di leen ñaanal aussi yàlla def jàmm Sénégal. mu doon pays bu naat pays bu am jàmm parce que aussi jàmm mooy lal yëpp yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal euh, ñi dëkk ci banlieue bi dëkk ci biir dakaar dëkk ci région yi yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla suturaal suturaal Sénégal def jàmm ci réew mi yàlla wàcc fi naataange yu bari xéewal yu bari yàlla fexe ba ñëpp am ba yàlla na barke mag ñi tamit wàcc ci ci jeunesse bi mag ñi tamit liggéey nañu loo xam ni àla kulaalin bu wàccee ci ci jeunesse bi jeunesse du ñu am dara loo xam ni parce que mag ñu baax la amoon ñu gëmoon yàlla te incha allah gëm naa ne dina baax <laughs> dee sax léeg-léeg dañ ma doon wax naan ma euh, ku kuñ am Frank Timis moo génnee pétrole bi mañ leen déedéet du Frank Timis ñaanu timis yi mag ñi daan ñaan <laughs> ñaan googu la yàlla nangu ñaan googu la yàlla nangu jël ñaan nga jëmmal ko mu tudd timis moo waaw waaye waaye nañu continuer rek yàlla baax na yàlla yàlla defal jàmm jërëjëf jëf kon mu nekkoon Moustapha Guèye journaliste chercheur nekk itam écrivain doon waxtaan ak ñun ci Almami Samori Touré juste suñu signaler que ni 4 janvier comme démba Samori Touré jaaroon na Saint-Louis en 1899 ndax Saint-Louis la ñu ko jaarale pour yóbbu ko Gabon kon jaar na fi itam ci Ndar léegi nag ñu jeexal ak euh, Bembeya Diaz bi ñu doon wax sànq euh, moom Moustapha Guèye sax ah suggéré ma ko donc euh, Bembeya Diaz li ñu wax ci Samori Touré dans l'album Regard sur le passé ñu génne woon ko en 1969 euh, moom la ñuy tëjee waxtaan bi kon bàyyi leen ngeen déglu ñu gërëm Diawa Diallo ci réalisation bi ak euh, technique bi Fatou Thiam Ngom moo faree woon ci kaddu gi euh, démb ak tay la woon ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm